gis nga carte ce mhm. qui bi euh, mom la doon wax région de Dakar fouf parce que région de Dakar yëpp 550 km2 la 10 fois 550 km 2 5500 km carrés mhm. donc nous ëpp donc ñu dem ci biir bismillah euh, euh, Yankoba Yankoba. Mhm. ni internet yi dañ ko xam donc tout taxawal taxawul fi touti ba point jaune yi ngeen di gisement or d'accord yo xamni ken kenn exploité ko yu jaune yi. yu jaune yi yu jaune yi moy li kon mi don laaj ndax or amna fi ba un deux trois quatre cinq dawalal xam nga yu rouge nak moy yi en exploitation donc yu rouge yi sept ci ben permis bi permis bi hmm. yo xamné ñu en exploitation donc fi un deux trois quatre cinq six septième bi dafa gëna sore Masato bi may wax euh, Indico donc euh, septième bi mo Masato d'accord te mo upp or gisement ñi tudd yépp ci Sabodala kon exemple pour wane ni or amna fi que masato bi laalaguñ ko. C'est ko dinañ ci ñëw. d'accord léegi nag dañ leen di won euh, li nekk ci suuf maanaam or bi mu ci ak déclarer réaliste nous allons ñu euh, évoluer euh, bismillah mm-hmm. donc maintenant, li ngeen di gis milliers de kilomètres carrés la la la donc, les 7 gisements exploités, ils point 7, les gens sont tous souffrent. Tu bures, tu souffres sous sol. Voilà. Les jaune, jaunes, or. D'accord. Les gisements, moi, Jérôme Niari gisement, ils ont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, moi, Massato. Les gens, ils ont ben par ben, ils ont les lits ak li ñuy déclaré ñëwal euh, Yankoba bismillah euh, apparemment il a voilà voilà légui fi taxawal fi moy gisement wu Kerekunda. kerekunda légui bo Kerekunda bo xolé minerai bi sept tonnes la minerai bi nga or dafa am ci biir mm-hmm. sept mille tonnes bi 6,90 grammes ci or mon nek ci tonne bu nek 6,90 grammes presque 7 grammes 7 grammes C'est bu nek tonne nek tonne nek d'accord Nous am 7 grammes or té li ci nek ci tonne 744000 tonnes là légui lolu ci or day nek 164011 11 moins 30 grammes d'accord 11 moins 30 grammes donc toujours dans di sétlu si vous avez un minerai, vous avez 740 000 tonnes, vous avez des Mais vous avez des choses qui sont très Nous avons déclaré 6,90 mm-hmm. grammes la tonne. Mais en général, dans la région de Kédougou, la teneur varie entre 6 et 7 grammes la tonne. Dans la zone, nous avons 8 grammes la tonne. Mais nous avons plus de minerai, madame Khéry, nous dit que nous nous avons déclaré ci grammage par tonne légui ñu joggé jógee kunda mais xéer yi ngeen di gis ni nak moy xéeru xonq yi moy yi renfermé or ni moy minerai bi voilà ñëw ñëwal bismillah euh donc boo xolé seen digënté dina am ay yaraax-yaraax yo xamné lolu dara newu ci mhm. donc fii kurululu la gis nga fi mo gëna a xam nga li jaune yépp or la taxawal tuuti ci tableau bi taxawal légui euh tableau bi mu ngi indiquer 2 200 000 tonnes de minerais. Mais nous avons un rendement de 4,20 grammes la tonne. Nous avons 6,90 grammes la tonne. nous avons déclaré 4,20 grammes la tonne. Mais le total, c'est 297 000 onces. Lors multiplié par 30 grammes pour le poids. Moi, je plus de plus minerai bi gëna a moy xéer yi am or mhm. moins plus ñu wani euh, teneuru or bi pour wañi poids bi motax amna am liggéey bu ñu wara liggéey mhm. bismillah ñu dem ñu joggé guluma guluma ñaar la dafa am sud ak ouest ki moy guluma bu ñëkk bi gis nga yarax yarax yi yëpp mhm. amul dara bloc yi ngay gis moy or ouest nekk ni. ñaari gisement il ay jumelles hein? euh, non donc Goulouma Ouest mu y mhm. xam nga tonnes de minerai mhm. Goulouma il am a millions 100 000 tonnes de minerais. mais xoolal a un rendement de 2,60 grammes par tonne. Par tonne. Nous 2,60 grammes par tonne. C'est même zone euh, géologique. Là. Légui, mën nga, mën avancer, euh, nous avons avancé. Nous avons avancé. Maki Medina, dans parce que ce n'est pas intéressant. Fi y or, xamna la limite de Maki Mota. 1 500 000 tonnes de minerais ah, Euh, mais mais 1,50 grammes la tonne la déclaré 1,50 g la tonne. Je euh, mhm. mais euh, je crois que voilà voilà voilà ni nga voilà ah. voilà mhm. voilà donc vous nga maintenant, nous continuer ñu continuer euh, ba Maintenant, nous ngi ci le mhm. sol c'est de l'or hein bloc yu yu yu c'est de l'or Il hmm? y a tamit mu ngi am gis nga minerais ñu ngi 4 millions 350 000 tonnes de minerais. ñu a 0,99. un rendement bi def ko zéro même sax 1 gramme nee nañu am duñ ci am sax 1 gramme. par tonne te gis nga liy xonq nii yëpp or la. mais loolu naka lañ ko mën a ñoom justifier ba tax ñu def ko nii. mais c'est-à-dire lii kenn da koo lijjanteegul moo tax. léegi dinañu lijjanti yëpp incha allah. donc lëndëm lëndëm la woon ci Sénégal yi lii intéressé wu coupe coupe su sol. ci or mos nga gis ku ko fii lijjanti fii Sénégal man mosuma ko gis vraiment voilà léegi nag affaire yi changé na. dinañu lijjanti yëpp ba mu leer parce que dañuy wax aussi ak ñi nga xam ne ñooy gan ci métier bi euh, ministre yu bees yeeg directeur yu bees yeeg yooyu pour nous xam ce ñu war a et ak la ñu faire. d'accord chaque fois émission l'émission est koy train de pour ñu leen defal consultance gratuite pour nous, ñu xam fan la ñuy. teg seen fan la ñuy naxee damay wax baatu xale yi ñoom ñu jéem Nous jéem a jéem Sénégal gis ci kon euh, parce que nous avons 4 350 tonnes nous avons déclaré 0,90 grammes la tonne. la tonne fii le la raay bi téene taxaw tax fii mooy Masato. fii y xéwal bi nga doon wax. Masato boo xoolee bloc bu compact la xoolal minerai 32 millions 800 mille tonnes. C'est estimation rek 32 millions 800 mille tonnes de minerai mais rendement bi <laughs> ñu ngi ko def 1 gramme 20 Mais imaginez le rendement bu nekkoon 7 grammes ñaata ci or lay doon te boo xoolee image bi nga gis ni lii bloc la amul ay yaraax-yaraax yi am ci yeneen minerai yi mhm. ci ci yeneen euh, euh, sites yi donc Masato bi mooy xewlu Sénégal fu mu nekk nii parce que bi ñu découvrir lii bëri na bëri goo xam ne ñoom dañuy ni léegi dañ koy teg benn place duñ ko laal léegi ñoom dañ koy def garantie tubaab yooyu ngeen gisoon ñuy tàccu euh, ba li lañuy def garantie pour financer sen yenen développement ou activité parce que dañu am des mine bu nek Burkina Faso fi la jëlé jëlee financement Euromine Joint Venture Group bi mo financer les mines yi exploité Burkina Faso parce que ay ingénieurs sénégalais ñoy dem diko ko exploité foofu te fii a les ressources financières et techniques donc Massato di ngeen mës a dégg turu Masato taxawul fi bon di nga mës a dégg turu Masato. mais est-ce que dégg tur rek doyna naka la def ba jëlat ko momar ko ñun suñu bop non lolu moy lima wax ci ben bi. d'accord manam ci texte de référence ak yooyu. Mhm. ma ngi ñew mhm. donc Masato bi xam nga kubu su sol doo ko gis léegi xol 32 millions 800 mille tonnes de minerai. Mhm. ñu ñu déclarer 1,20 g donc échantillonnage yeeg études yi def fofu il faut ñu gën ko certifier gën ko taxaw ba mu dëppoo intérêt Sénégalais donc fi mooy li ëpp li ñu am ci permis bii laa wax de bii permis Sabodala kese la am na 31 permis yo xamni ni joxe nañ ko bokku na ci Mako muy permis bu mak bokku na ci Massawa muy permis bu mak comme yi mais bari na yeneen permis or ëpp na 30 permis yu ñu joxe pour exploitation or

Donc ils multiplient par 30 grammes pour trouver poids bi. ah c'est pour lan. nax pour pour nous et puis bi sax nous ci 90 encore nous mais les nga qui nous, ñun ci nous a 10 sax. dañ là nous ci nous ci 10 Quand kon valeur découvrir. dañuy poids découvrir pour nous

dara bisimilah. tey yàlla Sénégal da sànq léegi nii ñoom 90 pour cent la ñu am ñun ñu am 10 waaw ñu am ñun ñi nga xamante or bi si ñu dëkk lañ ko découvrir. ñoo ko moom waaw. ba pare wàññi valeur bi. de par déséquilibre boobu noonu lan nu mu fa demee. mais suñu or bi ñu côté en bourse à la bourse de Toronto Australie. ba ñuy tàcc di kontaan di di dugal Teranga Gold en bourse. Teranga moom suñu moomee suñu Teranga ñun Sénégal. est-ce que gis nga foofu benn Sénégalais bu fa taxaw. est-ce que gis nga fa benn directeur des mines. gis ñu fa sax ku ñuul nga fa benn ku représenté Sénégal foofu. ñëwaatal ci image bi euh, Yankoba ñoom ñoomi neen la ñoom ñoo ko moom ñun dañoo tayle suñu lépp fii normalement ab sénégalais waroon na fi nekk. teraanga ñoom ñoo moom lépp ñoom ñoo kontaan di xéwalu ñoom ñooy boroom léegi ñu ñëwaat ci Masato euh, euh, Yankoba donc lii. mooy gisement Masato léegi mën nañu dem tontuna naa la léegi ñu dem ci kaw ñu dellu ci kaw euh Yankoba voilà yene ngi gisaat euh, li yëpp ay gisement la moy li féete suuf avancé ñu dem ci kaw donc voilà fii mooy Masato ci kaw <coughs> léegi lii amna ñu image réelle mais tay dama bañon sonal euh régie d'accord euh parce que dañu tardé mm-hmm. mais li dañ ci ñëwaat comme ça lii image trois dimensions la lii mooy blocu euh, Masato te lii nag rayon bu yaatoo yaatu la ay kilomètres la lii ci bët nii lu yaatoo yaatoo yaatu la du lu tuuti donc lii nii lañ ko bàyyi bii kenn laalu ko parce que garantie la pour ñoom ñu lever ay fonds parce que titre minier yi ñu leen di jox moom la ñuy déposer bourse boobu ñu rangaloo di tàcc pour lever ay milliards yu ñu financer seen ay activités

Mm-hmm. mais li xam nga ni day dakk de. mais bu euh, bëggoon na xam alal bi ñu fokkati si ñun naka lañuy def ba récupérer ko pour mom ko parce que li nga gis pexé ñu def yépp mu metti lool naka lañuy def ba jëlat ko récupérer ko momal ko suñu bop est-ce que du doon lu metti dédé du doon lu metti lool lool mom lañuy tejé mais nañu nañuy avancé euh, Yankoba. d'accord nañu nañuy avancé. Euh, donc Masato Pit moy moy gisement bu ñuy exploité ah hein. c'est anglais là donc li moy permis euh fii mooy Kérékourou bi ñu gisul te ñu ko continuer après yeb nañu li ñu ci ci kaw or donc fi Goulouma Ouest Goulouma les gisements euh, jumeaux hmm. Goulouma Ouest ak euh, Goulouma Sud hmm. xam nga ñoo nekk ni li ci jaune yeb or la fi lañu euh, régie

gramme or xam